بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki taskiir yi ñëw ak yéen ci 2134 ci ndimbalul borom bi nekkoon di waxtaane rek ci alwaaqia te mooy li ñuy dund mooy fi sunu réew toll ndax fi réew mi toll moo fi nit ñi di xalaate ñoo tolloo wala loolu nag mooy muskila bi mbokk mi ni day yëngu liggéey boo xam ni benn borom xam-xam nee na ko loolu dara nekku ci muy laaj ba xam te liggéey boobu mooy lii ñu wax wàllu parrainage bi moom <clears throat> ah, da ciy liggéey da ciy liggéey nag xaw ma ban liggéey la ndax boo nee damay commerce ndax commerce dagan na nga dib julli dañ la ne ah commerce ci ci cosaan day daggal na ci lislaam waaye yow ci lan ngay commerce nga ne ah damay jënd mbaam xuur di ko jaay wala damay jaay sàngara wala damay jaay nànkam ah kon yow commerce bi ngay def dafa xaraam parrainage di ci yëngu mooy lider bu lay ànd ak yow nga di ko dawalal wala leneen loo koy serviral muy wut ay parrainage loolu liggéey la amaa nag bi ma gisoon ci deux mille dix xaw ma am ku ñëw fii toog fii ma nekk nii ci daara ji ni amoon na nangam ci ay parrainage waaye jaay na ko leader diw leader booba at moom sax mu dul jàll ñëpp foog dina jàll xaalis bu bari la ko jaay bu bari mbir mi jaaxal ma lool ma ni waaw nit ki naka lay amee ay téeméeri téeméeri nit yu ko yo xam ni te kooku nekkul woon leader ki noon maa ko jaay leader sàngam laa ni moom du woon leader daa bokkoon ci benn parti rek ci parti yu mag yi mi ngi yëgu ci politique nag xaw ma fan la jël ay prénage toog fii ni jaayee na ko nangam xaalis bu bari laa wax de bu bari nag yëngu yu mel noonu moom ak ci foo ko mën a defe rek euh, du dagan ndax lan euh, mooy lislaam day doon yoon woo xam ni boo ci nekkee doon doomu lislaam yaa ngi ci kaso ki nekkul ci lislaam moom mu ngi ci àjjanaam ay ki tënkuwul ci mën xëj bi suñ boroom tëral ni li kullin jaal naa minkum shiraatan wa minhajan dafa naa surtout maay da la nekk yàlla nee na ñu ne ci yéen wutal nañ leen taxawal nañ leen benn benn yoon woo xam ni méthode la ngir ngeen dunde noona aw tëralin la siraatan muy benn sharia boo xam ne mooy nekk seen mën xëj léegi nag actuellement fi ngay waxee nii manhaj bi mooy lislaam lislaam moomu nag boo ci tënkoo doon doomu lislaam eh, daal dañ laa tere nga lekk nangam ndax daa xaraam dañ laa tere nga naan nangam ndax daa xaraam dañ laa tere nga mécc woo sàngam ndax daa xaraam ak yu mel noonu léegi nag fi ngay gisee ni manhaj bi suñ di wax li tax moom rek moo nu mën a euh, dalal ci kaw suuf nu dund gu neex mooy nu jaar ci yoon woowu gis nga bi ko fi bàyyee parrainage bi lu ci jublu waaw bu ñu bàyyee ku ne rek ni candidat laa yokk sax caution bi du tee dina am ñu lijjanti xaalis waaye bu dee seggukaay nag seggukaay boobu moom ñii nga xay ñooy électeurs senegal yi ñoom du ñu yokk mukk muk mukk wala boog bu ñu yokkoon dinañ ne nangam lañu yokk ak nag bu ñu demee ba bañ a segg bis ba ñuy wote ku dugg ci fi ngay war a wote di fa fekk nombre kayit yoo xam ne yow fa ngay yend oto bi sax oto bi sax boo xefee dina diire fukk dina diire ayu bis boo xam ni ñii day wote ba jant so boo liggéey ñeneen ñu wote ndax ñaar téeméeri candidat yi te woo demee dana ko ëpp ah mbokk yi fur fournir ko ah kon segg bi c'est normal waaye manqué na lu tax waaw gilaaw yow mën ngaa mën ngaa pare ne fukki nit yow kenn nit maanaam du yoon waaye kenn du xam ni def nga ko man nañ ko fay jële nañ ko fay jële buñ ko buñ ci tegoon ab yar boo xam ni li ñuy wax doublon képp ku pare na ñaari nit ah duutoo ko dolli mukk mukk parce que tëj la fukki at ah kooku moom duñ ko sax waaj tëj la ñaar fukki at ah kuñ gis ngay jaay prénance moom it kooku sax giiru lañ lay tëj mbokk yi li may wax rek tubaab yi gënuñu noo jub gënuñu noo baax te ñoonu gënu réew ñoon seeni luwaa dañu koy sàmm ndax lan dañ caa teg ab yar booy jàdd yar bi dal boo wéetee jàdd yëg nañ ko ndax caméra de yi ñoom gis nañ ni yow bis sàngam yaa fi jaaral euh, daal di burle foo bi yaa defa nànkam yépp di leen soxla bis boo ñëwee nag su weddee ah ñu jël nag tooñ yooyu rek dagg la ko ci sa alal te nit li mu gën a ah, ragal tëj ko kaso li mu gën a ragal jël alalam waaw rek léegi nag kon loolu lu yow mën a defar la waaye parrainage parrainage dëgg la baax na waaye nañ ko ñag nag ñeguñu ko nag kon xaw ma loo ci yëngoo de waaye nag su fekkee ni eh, eh, eh, yëngu la boo xam ni mooy léwal jëkk a wax daal loolu moom métier la ko métier yëpp rek waaye nag bu dee njuuj njaaj nag moom ah soo ma joxaatee beneen vocal daal ni ma daal nangam ak nangam laa ci yëngoo ñu def ci suñuy jàngat waaw waaw réew mi foofu la toll fi ñu toll nii ci wàllu politique waaye ndeysaan ñun ñi nga xam ne noonu ay kaw-kaw lanu bëkk dem dem na joow soowu jant waaye di nga di nga gis ni ren ji am na ñoo xam ni eh, xam nga ni ñii moom dugub moom xanaa dañ koy dégg rek eh, gerte gaat du am solo ndax bu nee ba am ñu góob am ñoo xam ni seen dugub ñu ngi naan mi ngi bëgg a fëcc rawante ko gu metti na lool te satnir ba di bëgg a jeex yàlla nag mën na lu ne am ñoo xam ne dinañ ci mus ci aslëf ci dugub aslëf ci gerte am ñoo xam ne moom euh, gerte bokkul ci waaye dugub ji fu ci aman doole foofa dana tane waaye fu ci néewan doole fam toog jógu fa kon ana engrais bi amuñu ko fi am doole mooy fi am engrais am ak tos gis nga ko ngooñ it xam nga ni moom it dina gën a seereti bu gerte ba diwul sëbit mm, tàmbali naa wàcc fi toll nii waaye daa mel ndakaaru la wàccagul waaye boo demee côté ngaay day ah dina yées téeméer moom it gis nga ko awul yoonu ah, bari yooyu yëpp nag sunu borom wax na ni dina nattu ci ah, meññet mu wàññeeku bakkan yuy faatu yu bari alal yuy sànku ay feebar yëpp sunu borom waxal na ko waaye lu ci nekk épreuve la xool nattu jullit bi xool ngëm yàllaam ba xam kii bu ñàkkee dina ko taxa wor ngir am a ah, ragal yàlla tax eh, ñàkk jërlu ko war wala fen wala liggéey lu xaraam ngëm yàllaam saa borom nateel ko ay point yu fort ci loolu yu fort a fort ci loolu ndax suñu borom moom هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور waaw فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى maanaam sunu boroom moom daal moom mooy yàlla ndax moom rek man lii tabax suuf wàcc fi nit ak jumtuwaay bu mu war a soxla rek parce que ñëw dugal la ci kër ah, nga fekk fa loo xam ni exact la nga soxla woon bi lépp ma nga fa bu jamono changé la jamono jalaaj nga xool daal ko fay gis fu sa xam-xam toll ci yow la rek waaye mbooloom bi moom ah kon moo lu digal bi mu lu wàccee ci kaw suuf it waaye jëkkunoo nag tracel min xaaj boo xam ni ni la war a dunde kon suuf a ngi noonu doxal demal wuti alal liggéeyil dëkkal fu la neex waaye nag xamal ni yow eh, da nga doon ku ne ci kaso na ngeen lekk lu ci wërsëgu suñu borom bi waaye bàyyi leen xel ni wa ilayhi nusur wa ilayhi nusur de ñëpp dañuy mujj dekkiwaat ñëw fa suñu borom waaw ni ni ni joowu fi kanamam moo taxit ba mu def wàcceet boole na la ab noon moo tax mu waxoon aadama aadama euh, nee nan la yàgg sa soxna si iblis mi seenum noonu la de waaw noon bi nag li muy fexe bu mu am de bu mu leen génne àjjana mukk mukk mukk ah bu la ci génne rek nga tus ko ren seet waaw gis nga ko falaa yaxrijannakumaa minal jannati fa tashqaa shaqaa ad-dunya seet mbokk yi kon sunu borom subhaanahu wa Euh, la xasanul basari radiallahu anhu doon wax xakki bu mag boobu mu ni fa tasqa ishaqa dunya laa yara ibnu aadama ila ila nasban ay nisban wa yaqulu xayrihi huwa an yakula min amali yadayhi loolu rek wax na wax yu bari nag ndax daana wax ni laa takun mi man yajmau ulama ilma al ulama wa xikama al xukama waaye waya jiri fi ma waaye waaye bul doon nit koo xam ni xam-xami ulama yépp dajale na ko xikamu xaakim yépp dajale na ko nag ay jëfam daal moom dafa nitewul rek wax dëgg yàlla melokaanam daal ci sufaayee daal ñoom la ndirul nii kii daal daa mel ni bokkul ci ulama yi ak xaakimina yi ak xukama yi daan la wax ni isalam isalam yudil isalam yudil al muallimu bayna sibyan kutiba mina sulama waaw loolu ki dëgg la nee na bi daal bu maanduwul ci ndaw yim yore bu ca maanduwul nee na kooko béyoo ñu boole ko ci tooñkat yi gis ko daana wax ni lawla al ulama la kaana naasu kal baayi cay budoon na boroom xam-xam yi daal nee nit ñi ñooy comme bàyyi may yi comme bàyyi ma ndax bu boobaa xam-xam bi réglé nit ñi tëral ay loi indi ay atte euh, araamal alali jàmbur araamal derëb jàmbur araamal bakkanu jàmbur araamal luy dofloo nit soppum xelam muy sàngara wala danga koy tox euh, araamal tamit euh, lépp lu mat araamal bur rek li boroom xam-xam yi euh, leeral loolu di ko jàngale tëral ay loi wut ay état wut ay ay ay ay ay atte attewukaay tëral lu ñu war a def kon boroom xam-xam yi eh, nee na bul woon ñoom nit ñi comme ay bàyyi ma bàyyi ma yi gis nga ko demal ci àll bi xool gaynde bu xiifee nu muy def ah jaan sax bu xiifee moom it nga nu muy def dem lekk ko waaw bukki bi noonu gis nga ko segg bi noonu mbëtt sax moom sax moom it day seeti moom it léegi ci yii dox ci suuf nii lu mu ci mën a lekk daal di koy lekk waaw boo ci géej géet noonu nit nag moom gis nga ko euh, bokk la ak ñooñu moom kon soo waxee ni sulu nag boroom xam-xam yi léegi nag kon foofu boroom xam-xam bu ne ndem boroom xam-xam nga ah war ngaa xam sërol ci kaw suuf li la yàlla lay doyee li nga war a def ci kaw suuf boo ko xamee te defoo ko duñ la boole ci boroom xam-xam yu ragal yàlla yi ndax lan innama yaxsa allah min ibadihi al yàlla daal ñi ko ragal ci jaamam ñi ñëpp ñëpp xanaa mooy boroom xam-xam ya rek moo taxit am na fu suñ Tuubaa di waxe ni ki ragalul yàlla doonte jeel na fànn yëpp am na doctorat am magistère la am na nangam am na deux am na trois am na un bi yëpp nee na du boroom xam-xam walaw afnaal funun man lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnaal funun kon kooku aay bi rek la firi waaw daana wax ni maa lasima abdun dikral mawtu ila saxurati dunia inda nee na feeg jaam baa ngi takkoo di fàttaliku dee adduna di tuut ci kanamam mbokk yi sa xel bu mu jóg ci dee rek àdduna du rëy ci sa kanam mukk mukk fekk àdduna rëyul sa kanam nag yii yëpp doo ci dugg àdduna du tax nga dugg ci parrainage ñëw na rek nga bokk ñi nga xëy seen traite teer daal nay commencé waaw am na ñoo xam seen traite commencé na de waaw kenn kenn xamul euh, fi jamono toll fi ñu toll nii noo koy lijjante yàllaa ko mën a lijjanti tax naa da koo bàyyi ak nun rek ci waxin daal laa bëgg a wax xam naa le day ñëwaat waxtu yu jot na rek lu yem foofu salaamaaleykum wa rahmatullah